ahousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum mbokki murid yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare jiite su nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñaanal ko saa borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba mbooleem naal yi nga xamante ne naal na ko yéen a koo liggéeyal maam ju tedd ja sëñ Bamba saa borom dooleel ko kattan ak man-man ko defal ko tawféex ba ko bëggee mu defal ko ni noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi faal moom Serigne Modou Fall Mbenda saa borom gën ko fa yàggal te wéru ko ba mboolem ndigal jógee ko Serigne Bamba yëpp mën koo jëfee ni mu ko bëggee diñu ko digal ni koy defee ni ko bëggee waaye di ko ñaanal itam Serigne Amdi Khady Fall moom Cheikh Serif asan Fall ñaanal ko ñi nga xamante ni mooy njabootu Cheikh Serif gi waaye ñaanal ko mbokku taalibe yi ndax mbokk yi boobaak léegi ñi ngi ànd ak yéen fii nga xamante ni nii day dëkk bi nga xamante ni ñaar ñi ñu gënal def nañ fi fukki at ak juróom ñu fi waajalee ay ñam bokk ci jëf yi gën waaye mu doon loo xamante nañ koy def ci weer wu gën muy ay ndogu waaye laytaayale taayale ko lii nga xamante ni mooy baat bi gën di baatu laa ilaha la di ko yóbbu nag gën gi dëkk di tuubaa di ko jébbal ki gën muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mbokk yi boobaak léegi ñu ngi ko àndee ajuma gu njëkk ja ba tey ji du juróomeelu ajuma di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fan weeri fan sax si weeru koor loolu nag tey lañ leen ñëwaatal fii fas yéene la wan ajjuma gi mujj gi fii nga xamante ni mooy Kawsarax ngir li nga xamante ni am na fi ngeen mën koo dund comme yi weesu incha allah rabbi kon nañ àndandoo daal di jël li nga xamante ni moo xew fii ñu dundandoo ko ñun ñëpp jaa ngeen jëf. la la la ha la la la ilaha إله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 ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la fa la ilaha illa la la ilaha illa la La ilaha illallah Fa la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Fa la fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la waaw kay mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi toog ak euh, baay Moustapha Seck comme niñ koy amalee àjjuma bu jot moom mi nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi booleel ngi ñu seq ak moom waxtaan Baye Moustapha xam nañ ni ñi ngi si juróomeelu àjjuma boobaak léegi nag saa buñ fi ñëwee yow mii la ànd ak liggéey bi tey nag bëgg nañ nga ñëw si maanaam def résumé si àjjuma yi nga xamante ni moo weesu waaye sant tamit murid yi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi tey ba ak si fii li tax ma tàmbalee waxtaan wi ci alhamdulilahi rabil alamina weeru koor yi dafa teru nu war a togg ajjuma ju jëkk nu daji fii ci njaarim ci kër gi maam si Ibrahima Fall tudde woon madinatul munawara sëñ Atumaan Jóob sëñ ci kër gi dab bi maam ci Ibrahima Fall jógee Kees 1916 dafa dal fële ci kër yëlli ni nañ ko wutal kër maam Saliou Fall rakkam ju baax ji daal di jéggi penc mee tudd Makka loy loy maam Saliou Fall tudd ko Makkatal Mukarram sëñ Atumaan Jóob dox lu ma du kilomètre ca penku muy fii nu toog muy penc mii jumaa ji ne ak kër maam Cheikh Fall gii tudd ko Madinatu Munawara muy ñaari kër maam Cheikh Fall yi màkkatal mu karam maam Cheikh Fall ko sanc moo ko tudd sëñ Atumaan Diop sanc penc mii tudd ko sëñ Modou Moustapha Ndiaye bi may ñëw nag sëñ Atumaan Diop mi nga xam ni moo tudd penc mii sëñ Assane Diop ab xalifaam moo ma waajal te it penc mii maamam sëñ ci la maam si Ibrahima fa jëkk a togg ay ndogu ba nim fi bàyyi koo dem ci kenn gi ci màggatal mu kanam loola neex na ko lool mu ne ndogu sëñ am di xalifaat yii nga xamante ni yéen fi liggéey Cheikh Ibra waaye di ku liggéey nag ci penc moo xam ne saa maam la ko Cheikh fa ridduloo woon maa maa la waajal sëñ Assane Diop ma waajal bi muy ñëw sëñ am di xët def na maamam daan def organiser ku ne mu jox la sëb cër boole noo ki jëwriñ sëñ si xëdi faat rakkam nekk ci sunu kanam ànd ak rakkam sëñ Moussa Fall ànd ak rakkam sëñ Sidi Fall ànd ak rakkam sëñ Cheikh Fall Dieng ànd ak rakkam sëñ Fallou Fall ñu di ko dakkal na ci wujuru jigéen ña sëñ Fallou Njaaña ak seeni ak njaboot gi ak magi taalibe yi ñooñu da njabootug Chérif Assane Fall gu tegu ci aw yoon waaye bi ñuy ñëw it di liggéey bi mu ànd koog ay doome rakkam yi nga xamante ni dañ fee nekkan ak moom te ñu wuy ji Seera Faal seen maam wuy ji Sëriñ Asan Faal seen baay doome rakkam yooyu di taawe rakkam yooyu da ay jàmbaar da ay gaynde ànd ak seen wuy ji ci liggéey Seera Faal bii ànd ak maam Lamp Faal mu sëñ Cheikhouna Fall mu sëriñ Assane ànd ak sëñ Cheikh Fall mu sëriñ Amdi Nogay Fall moom sëriñ Assane ànd ak sëñ Fallu Fall mu sëñ Amdi Yaasin Fall moom sëriñ Assane ànd ak sëñ Moustapha Fall moom sëñ Abdou Aziz Fall mu sëriñ Assane waaye mu sëriñ Modou Moustapha njaboot yëpp ak seen ak doomi boppam yi ak doomi magam ñëpp doomi rakkam yi ak ak ak i jigéenam ñi mu bokk sëriñ Assane ndax sëriñ Moussa Ka moo ni ñàngoor mu góor ak mu jigéen dangar ya ndax luggukat xamee ne leen ca jat ya ñu ne déedéet mu ne jaan ju mu doon soo ko luggul mu rey la ku xeeb jigéen ñi doo am yàlla ñoo ñii nag ñoo encadré di sang yi encadré liggéey bii ñu boole mbooloo mi muy benn ñu am kuréel bu ñu tuddee gris noir gris noir mooy gore moo nu war goree nu liggéey bi boo ñëwee ci liggéey bii gis nga ni mu nosoo bi ngeen di ñëw dañ leen ni micro trottoir bu leen ko def jox leen mu tawal seen gi ku ne wax leen mu wax ku ma liinul bu mu wax bu mu wax xam naa ñu war a wax baajum ndox bee soo ca bëggan liitarum ndox takkagul ci am di dénk andu ja doo naan matt mi boo ci bëggan ak xorñeent teggu ko si mi dénk andu ca doo naan doo taal noonu la def ba yëpp daj foo dugg jël na jëwriñ teg fa joo xam ne natt na ko ba mu jëwriñ loolu la ñu boole nag nga xam te ni soo doon xool te ab dawla lay doon ne ni ab gouvernement du organiser noonu la suñ am di Khady Fall organiser mbiram boo demee ca gétt gee su la ngañ bay ne doo dugg ci gétt gi doo dugg ba ñu demee bay defar nag yi amul ñett ñuy lottal mbaa ñeent sëñ bàcc jum yor lépp kenn ku ne li nga war yor ko waa daayira Gris Noir yor organisation bi ñu def ay comité ba ñu rappelé ci nii ba jox ko jigéen ñi commission yooyu ñoo dugal di tekkamtal jigéen ñi ni ñu war a toggee ak ni ñu ko bëgge ba mu mën amee ni ñu ko bëggee loolu la liggéey bi doxe ñeenti ajjuma yi jal ba ci juróomeelu ajjuma bii kon ñu di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal ndax sëriñ bi <coughs> dafa am li mu bëgg mooy bëggu baayam rekk la bëgg jëmm ji sëñ am di Tuubaa Njaay la tudd mu baay Moor Njaay yendu naan dib saadix kii rakkama sëñ Maa Mbay Njaay ñu bokk baay damay seere 1974 bi sëñ bi mujjee togg kees ay ndogu noom ñii noo ko àndal sëriñ bi sëñ Assane Fall génn bangub dénk boobee mu daan toog boon ca beneen daaw bangub toll ci ñaari toogaayu ñaari nit ci la sëñ toog njël ñuy ñuy rey nag yi mu naa na sell na sell na sell na 74 googee la sëñ Amdi Xadi Fall yokk ko ndogoy maam Cheikh Ibrahima Fall yi def ko ñaar fukki ndab ak ñeent ndax fukki ndab ak ñaar la ñëpp daan togg ak suppeeru ginaar moom la maam Cheikh daan togg moom la njoomatug maam Cheikh Fall gépp daan togg sëñ Aline Fall ko yokk at moomu te lépp mu def ko ñamu Tuubaa naa na sell na sell joojee nag moom la sëñ Amdi Xadi Fall de togg ndogam yii na sell moo tax bëggu baayam moo di bëggam ginnaaw nag na la bëgg te mboolem commission yi yor liggéey bi ñu nga doon sellal béy si tey sëñ Amdy Khady Fall ne na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal sell gi nag sëñ Amdy di li ci gën a neex bi danoo boole ñaari liggéey ren ndax këntul kitaab di kërug alxuraan gee sëñ Mountakha jox sëñ Amdy Khady Fall bi ñuy bëgg a woor des ñeenti fan sëñ am di daa jël ay aldiyaam yët sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Muntaxa ni ko foogu ma ren di ma jox lii mu ne ko dama bëgg la war a am am ne ko dama bëgg nga ñaanal ma na na liggéeyub université ba këntul kitaab di dox ndogo yi dox fii ne bu ñu jógee saa yu ñu jógee fii gaaw la ñuy la ñuy nopp muy samedi xëy fa dimanche altine talaata ba nun mbooloo mi alxamis nu xëy si njaarim ouvrier ànd ak ñi leen jàppale xëy si ba alxames tey lañ dul liggéey ba weeru koor yu jàll <clears throat> noonu la liggéey woon miir bi nu boole ñaari liggéey yi noonu lañ liggéey université bii dikkantul kitaab këru alxuraan bi kër gi nag du bâtiment bâtiment la tudd mënu ko bañ a tudd waaye bâtiment yanu xamante koo romb ndax guddaayu bâtiment bi quatre-vingt-quatre la juróom ñetti la ak ñeent yaatuwaayu bi quarante-cinq la ñeent fukki mètres la ak juróom bi bi yaatoo te de te am souterrain lu ja topp kon kon loola ndax bâtiment boo xamante ni soo ko doon natt ci ay kër da nga naan fukki këri vingt mètres yu ñu boole muy benn bâtiment xamuñu ko woon waaye Sëñ Tuubaa muy Sëñ sëñ Mountakha yal na ko fi yàlla bàyyi te mu ànd ko wér ndax dafa wax sëñ bi ne ko bi may tàmbali liggéey bii yow yaa yaa ko tàmbali yaa miiri miir bi te bi bi si mu Muxtaar nekkee tam bâtiment bi ñu njëkk liggéey ci université bi si am xëy na ko liggéey mu ne ko bâtiment bii dina kënsul kitaab di këru alxuraan mooy moom dong nga ci des kon yow yaa ko jóg nga ko kon sëñ am di ba boole gën a boole liggéey bee ak liggéey bii liggéey bee di sel liggéey bii di sel te te te sëñ Moussa Ka ni yàlla di buur nax buur lu fay lu sellul te dee leen sell di jëf di dow lu yellul te sëriñ Assane bu daan liggéey loolu la ku ci gën a ñor mooy sel ga sëñ am na ka di Fall nag ci sell gi daal ci la ñu sant ci la nu gërëm ci la ñu ñaanal da ñaanu téewi ko ay déwén déwén ju ñëw dàkkal nu moroomam kon nag lii moom incha allah yegg na ba noppi te bu ñuy dem Touba ab yar lañ fa yóbbu ak i teggin te mooy al adabul mardiya teggin ñu ñu gërëm la fa mboole mu yóbbu Touba sëñ bi nag nee lii mi ngi sant mi ñaan mi ngi gërëm bu ñu fi jógee tam bisu bisu bisu suba bi ñuy woree muy samedi de gaaw bu bis ba déllusee sëñ am na kat faal ni ñun ñëpp nan daje ci université Cheikh Al Khadim be ci kansul kataab na gitan liggéey ba nag. ba keroog nuy delloo caabi ya kon nag sëñ bi mu ngi soññ ñëpp mboolem ku mu bokkal kaw di soññ ab xarit di soññ ab soppe di soññ wëllëre ndax bis bu waree fii incha suba ca gaaw gaaw ba bu dil see ahlu kaw gépp ak xarit ak soppe yi dañu daje ci université bee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara maa ngi jégul nag bu baax a baax a baax a baax ndax baat bi dafa xaw a dee tey xam naa coono yi eh, su ko defee wax ji dina gàtt lool waaye rek di tàmbalee fii sëñ am di tàmbalee te mooy alhamdulilahi rabbil alamin lay sabab bi moo di yàlla dañu bind eh, boole nekk sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye féetalu nag maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiina wal Muridaati eh, tànn nag boole noog Serif Assane mi nga xamante ni bii Cheikh Ibra Fall daa wax naan doom ju ma naa ko ba mu des Assane mu bàyyi fi nag jàmbaar joo xam ni muy sëriñam di xadi sama bàyyi nee na euh, ba muy tuut tànk su mosaan dox romb sëriñ Assane euh, day wax ne ah, sama ndaama bu jotee buntu nekk fa góor ña tëlee fa lay tàmbalee jëm kaw loolu yaakaar naa ni fes na dàng léegi ñëpp xam na ko ne xam nañ ni ku ne xam na ni jëfi sëñ Amdi Xadi ku ne xam na ni jëfi sëñ Amdi Xadi yoonu murid ñëpp seere nañ ko waaye réew mi yëpp seere na ko jëfam nag da koo teg rek fa ko maamam tegoon te mooy alxuraan te ku ne xam ne ni maam Cheikh Ibra léppam al la ak hadiis lii nga xam ne bii moom la ñuy liggéey di togg aw ñam di ko joxe rawatina nag di ko jox Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul alxuraan dafa waxoon ne saari'u ila maxfiratan min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fi sarai wa darai wal kaasimin al xaysh wal aafina an nas wallahu yuhibbul muhsinin laaya ja nag la ma ca soxla alxuraan moo wax ni ndax du ngeen gaaw jëkkante aj sama ajjana ju yaatoo ni asamaan ak suuf mu mel ni dañ koo laaj yow yàlla loolu lu koy maye mu ne ñi nga xam dañu gëm yàlla te ragal ko tey dund na ci lu nëbb ak ci lu feeñ ñooñu dinañ am ajjana ju yaatoo ni asamaan ak suuf ànd ak sama njëggal maam Cheikh Rafal nag sëñ Tuubaa féetali ko loolu muy togg di joxe te Cheikh Rafal daana wax ne dabee ndab ku la raw ci yàlla boo yàggee togg lee nga rab lee nga lee nga dab ko ah yant bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni jël benn tibum ñam jox ko ab jullit mu lekk ko moo gën nga tabax junni jàkka eh, Serigne Touba indil na ko ci benn bayit wa luqmatu taxsudu batnal jaayi afdalu min binaayi alfi jaami jël benn tibum ñam jox ko ab jullit mu lekk yonent bi nee na moo gën tabax junni jàkka waaw kon koy toggul nangami booli lu mat téeméeri booli ñetti téeméeri booli ak nangami nangami nangam. kenn xamul lim bi ni toll waaw ñaata tibi ñam moo cay bàyyi koo kon ko loolu képp ku xam njëriñ li ci nekk saa yu sëñ bi sóoboo ci liggéey bi nga daal di gaaw joxe ca la nga am te bañ a googu sa bopp tey sëñ bi moom kat boo ko defalee da lay daal di defal du néeg ba du nekk ba ëllëg mu di la ko jox saa yoo ko joxee rek mu daal lay joxaat ci saa si. kilifa yi fi teew bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ Cheikh Fall di sëriñ Cheikh Khady Fall ak rakkam yu baax yii mu àndal di Cheikh Seydi Muxtaar Fall ak sëriñ Fall Fall ak magam sëñ Cheikh Dieye Fall. teg leen bool yi ñaari jalam këjul ci biteel ñaari jalam këjul ci biteel teg leen bool yi ak seen rakk yu baax yi ñu àndal ak seen doom yi ñu àndal ak magi taalibe yi ñoo sëñ baa ngi ni jot li cantuk sëriñ Amdi Xadi Fall di Cheikh Mamadou Moustapha Fall yàlla fi yàgg Fall te ànd ko wér ak fekkee tal ak man nee na sëñ Cheikh sëriñ baa ngi nuy sant sëriñ baa ngi nuy gërëm sëriñ baa ngi nuy ñaanal te taxawaay bu rafet bu màgg bii nu taxaw ci liggéey bu tedd bii di ndigalul borom Touba ñëw ci kanam maamam maam Cheikh Ibrahima Fall ba ñu ci ëttub Kawsara Fall bii sëriñ bi nena mi nga sant tàmbalee sant gi ci rakkam yii nga xam ni ñoom la ànd liggéey bii teg ci doomi rakkam yi nga xamante ni ñoom itam sant rakkam yi mu bokkal liggéey bi yi mu bokkal liggéey bi te ñu ne fi da santit ñi fi nekkul te seeni doom nekk fi ànd moom liggéey bi di sant seen njaboot googu di seeni doom sëriñ bi ne sant googu nag mu ngi koy sant góor di ko sant jigéen ndax ni mu ko sant sant ñi mu bokkal Chérif Assane Fall ak mboolem ñi mu bokkal maam si Ibrahima Fall ci góor noonu na ko sant ñi mu ko bokkal ci ci jigéen mu ngi gërëm ñëpp ba loolu jàlleen mi ngi sant taalibe yëpp di gërëm taalibe yi magi taalibe yi ak fu taalibe jóge ak xarit yi ak soppe yi ak wëllëri yi sëriñ baa ngi sant di gërëm ñëpp ndax moom kat yëg na ni liggéey bii bi mu ñëwee ci ay loxoom ak léegi ñi jaayanteeg moom ni ñu ci jàppe ñeneen ñëpp noonu lañ ci ame yéene kon ñëpp mu ngi leen di sant di leen gërëm mu def xarit mu def soppe muy wëllëre mu def taalibe koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu na muhammad rasulullah ne mi ngi lay boole cant gi nee na bu loola jàllee nag sëriñ Cheikh ni na mi ngi nuy ñaanal képp koo xamante ni taxaw nga ci kër gi te liggéey biit indi la fi saa borom dafa la loo xam te ni mënoo koo faggul suñu bopp ci pajum aajum tey ak pajum ëllëg ëllëg waaye ni na loolu nag ak ñaan la ci sëriñ bi waaye ñaan ko am ba nuppi la ndax noonu la borom Tuuba liggéeye yoon wi moo wax ni may ma joo gis ma wax ko yàlla joo gis rek xab lii joo gis ma wax ko ci xasaayid yi lu ma yàlla may ba noppi la ni ma ñaan ma ko ma ñaan ko ko fekk ba ma ko ñaan may na ma ko sën ci xëdd ni ne loolu nag sëñ bi ngeen koy ñaanal waaye mu ngi ci kër gi képp koo xam te ni tabbi nga ci kër gi tey ak ñi aman yéene te bis bii tax na leen wóor ne amee nañu fi loo xamante ni mënuñu koo fàggul seen bopp faneen kon na sunum xel dal bu baax a baax suñu ko seet loolu bokk na si cant gi yéen itam faal ni leen sëñ bi sant naa sëñ si di ne ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ta di ñaanal taalibe yëpp fan mu yokku lépp yokk ci nun kon nun dongo yeen nag faal nu ngi leen di ñaanal seenu taxawaay yàgg na fan yu gudd naan di ko wér seen rakk yi nga xamante ni dañoo jiitu saa borom yokk seen i ngërëm ak seen leer seen doom yi leen fi nekkal saa borom dëgëral seen taxawaay ndax loolu kat suñu ko seet na ci nun dongo yi lool ndax ànd bi ñu ànd ak jàppante gi ñu jàppante faal sunu xol da ci siddu guy ma maam lam mu guddi na waaye ma jéggulu ko baax ki daa digle woon loo xam te ni sëñ am di xarit Fall yëg na ni ci nekk borom Tuubaa dafa waxal ni ñeenti jëmm ngi nii yoo xam ni jëmm ju ci nekk day am ñetti jikko yooyu ànd ak moom sëñ tubaan ni ku ko def si àdduna dina jag sa àllaaxira dina jag askan wi ci la ñu nekk ni sëñ Tuubaa ni ana jëmm ju jëkk ji mooy jan nee na mooy yàlla sa borom ne yàlla sa borom mii ñetti ko yi ngay ànd ak moom mooy lu mu la sant na ko def lu mu la tere na nga ko baax lu mu dogal na la neex te lii santaan ak yàlla la di santaan ak Muhammadu Rasulullah di santaan ak borom Tuubaa ji sëñ bi ne ana jëmmi ñaareel ji mooy jan mooy sa mbokkum lakkarab mooy sa mbokkum jege ñaale borom Tuubaa sa mbokkum lakk rab mii ñetti jikko yi lay àndeek moom mooy na ngeen bokk yéene na ngeen bokk ay pexe na ngeen bokk lu ngeen am sëñ am di yëng na ni ku bokkal ci néegum ndey ak néegum bàyyi ànd nañ ci liggéeyam sëñ tubaab bii rawatina nag bokk ci xaqiiqa bii ñu dund borom Tuubaa ne jëmmi ñetteel ji mooy jan mooy koy wax ashadu an laa ilaha illallah nga di ko wax ak fu mu ko waxee sëñ tubaa ne na ñetti ci koy ngay àndee ak moom mooy na ngeen soppante na ngeen wóolante na ngeen dimbalante daal ni jëmi ñeenteel ji mooy jan sëñ tubaa nii mooy koo xamante ni yéen bokk benn territoire nga xamante ni yal na dib murit yal na dib tijaan yal na dib julit yal na dib chrétien yal na protestant lu mu mën a doon waaye suufu Sénégal sii yéen a ko bokk mënoo ko fii jële mënu la fi fii jële borom Tuubaa ni ne ñitti ci ko yi nga ànd moom mooy bu ko xeeb bu ko yàpp bu ko bañ loolu nag suñ biir na ko ci mbooloo mii kon alhamdulilahi rabbil alamina léegi nag bu loolu jàllee sëriñ Cheikh ñu ngi soññee liggéey ba ca Touba. ñëpp kat nee na ñun ñëpp. na doon suñu yitte. na doon suñu yitte. ginaar bi ñu làkkee jaajëf yi ba noppi. ginnaaw bi làkkee jaajëf yi ba noppi nag. sëriñ bi ñaanal ñu. sëriñ bi ñaanal Cheikh wax ni. Serigne Cheikh wax ni. war nañoo ñaanal sëñ bi ñu it. war nañoo ñaanal sëñ bi ñu it. sant gi mu ñuy sant. sant gi mu ñuy sant. giñ koy sant ñun. moo ko ëpp moo ko ëpp fab. ndax dimbali nañu. na dimbali nañu. lii kat ndax lii ko ku ca ne ku ca ne ànd caag yow ànd yow won la yoon wi won la yoon wi nga ànd caag moom nga ànd caag moom gis ca njëriñ nga gis ca njëriñ war nga koo sant war nga koo sant kon sëñ si wax na ni kon sëñ wax na ni ñoom day koy sant ñu ngi koy sant di ko ñaanal di ko ñaanal fas yéene taxawit nag fas yéene taxawit nag ci wetam ci wetam ndigalam rek ndigalam rek lañuy diglu moom la ñuy diglu guddi ak bëccëg kon wax na ni liggéey benn bàyyi ca Touba nekkoon ci ndigal lii mooy yitte ji fii mu ne kenn ku ne soo bàyyi ko fii foo dem na nga diglu ndigal ndaw koor gi dafa takkaloo ajjuma ji waaye fas nañu yéene ñu julli ji te nekkan fi saa suñu tàmbali si waat dañu fexe ñëpp yëg ko fii nu toll nag sëriñ bi soxla nañu mbooloo mbooloo mu bari mu fa teew ndax liggéey ba ay kàmb dafa ne te kàmb yooyee lay tax mu sakku mooy mbooloo mbooloo mi nag soññoon nañu leen ña julli ji ña yoroon liggéey bi bu ñu dellu see dañu jàpp bis ñëpp yëg ko waaye dañuy bëgg nag ci ni ko sëñ bi waxee ñëpp soññewaat soññaat mbooloo yi ñu topp ci seen ginnaaw ndax fi nu toll am na lu ñu séentu tey kàmb la bu ko fa ndox fekkee dana xaw a doy waar waaye bu ci ñëpp jàppee. yàlla mën naa dogal balaa yegg foofa mu sotti ñu koy liggéey daal loolu la ñu tàggoog nun kon sëñ Cheikh wax na ni ginnaaw bu mu soññee boppam mu noppi mi ngi soññ ñëpp fu fi waay dem daal nay diglu ndigal tey laaj yàggatul bu ñu waree rek deenu jubloo ci mbir ma taxawul nag waaye na koor gi ak koor gi ci ajjuma ji nu wóor wala julli suba ñoom ñu julli ji faaw mu taxaw fi waaye yaakaar naa ni du matub semaine kon sëriñ bi nee na fu fi waaye dem rek na yóbbaale loolu nu tàllal nag sëriñ bi ñaan sëñ si nee noonu ñu ko waxee rek nee na moom sëriñ bi ni ñaanal waaye noo ko war a gën a ñaanal ndax jitaay bii li ko waral nee na waxtu mu daan génn ci palanteer bi di wax ak ñun la mu njëkk a wax dama bëgg ngeen mus li ma mus ci ndigal nee mu mus nag mooy dégg ndigal di ko fas yéene jëfe ak man ak uk tële ndax lii ba mu koy soog a tàmbali ak dogu ak uk bëgg te la ko def mujj nag mu dimbali waat ñu wax ni ku man na nga ñëw ku tëlit na nga ñëw xam ni moom li muy def yéene nanu ko bu nu teewee dina xam bu nu teewul dana xam te bëggul kenn ëpp lu ci moo tax fi ñu toll toll na foo xam ni ndigal lu mu yëkkati ku aju ci moom doo dooni kenn jiitu bu la ca kenn jiitu ba aju ci loo mën ak loo mënul lu mu woote rek yàlla dogal loolu leen ca moom la pays ba ñuy faye ba ñuy fare nee na fale yeroo nee na koy borom pays ba ka mu yar kookaa ko yar kon koo xam na ni moom dimbali nañu moo ko tax a jóg te am na lu mu làq ba noppi kon alhamdulilahi nu ngi ko ñaan ak wér akuk dal akuk tal li ma mën a xam nag moo di moom mii li fi mi ngi fi bëgg a nekk di fi nekk bëgg fee nekk itam bëgg noo dimbali rek kon alhamdulilah kon nan farlu nan nan fexe ba neex a dimbali jërë gën a jëf waxtu na ko bàyyi te dem wuy ji jërë wax amiin nan taalal ñaan gi te nangu amiin amiin min فلا إله إلا الله فلا la déwénati faal déwénati moom la romb ci yoon bi ñëpp di ko wax di way naan faal yàggal te loo gën a yàgg muy gën a neex faal yàggal te wér ànd nañ ko génn di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér moom sëriñ di Xadi Fall moom Cheikh Serif Assane Fall ñaanal ko rakkam yi waaye ñaanal ko mbooleem murit yi ak léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci ajuma ju njëkk ja ba tey jii du juróomeelu ajuma foofee ca njaareem dema laal lañ leen fa wanal leen la nga xamante ni moo fa xew démb lañ fa dem jëlal leen la nga xamante ni mooy liggéey bi kon nañ ko daa defee li nga xamante ni mooy gàtt yi li nga xamante ne mooy ndugg yi li nga xamante ne mooy ganaar yi ni ñu koy liggéeyee lépp loo xamante ne aju na si wàccaayu lii nga xamante ni mooy waajal ay ñam waaye bi ñu xëyee itam demal nañ leen si waañ yi ñetti waañ yi fa nekk wala yi wër kër gi sax jëlal leen murit yi ngeen dundandoog ñun la nga xamante ni moo fa xew noonu tamit lañ demee ci ki nga xamante ni aju ma bu jot moom la ñuy feggool muy Baye Moussa Seck waxtaan ak moom tey mu sant murid yi gërëm leen ndax bisu sant la comme ni ko yoon bi yëpp defee noonu lañu ànd ak yéen ba niñ tegee bool yi ba niñ ko muuree yàpp ko si oto yi ànd ak yéen jugee njaareem jaar si yoon yi ba dugg fi nga xamante ni mooy Touba jaar nañ Mbàkke waa Mbàkke génn di sant ak a sargal sëriñ Amdi Khady Fall ñu dugg Touba waa Touba génn di sant ak a sargal sëriñ Amdi Khady Fall fépp fu ñu jaar mbégte la ñuy wane tey ñaanal ki nga xamante ne mooy sëriñ Amdi Khady yàgg fi waaye ñu koy ñaanal itam mbooleem koo xamante ne muy Baye Fall mooy Dadib Baye Fall mbokk yi nag lii nga xamante ni moom la ñu jëlee Jurbel yéen lañ siy sant yéen ñi nga xamante ni ba koor gi tàmbalee ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun noonu nag lañ ko fas yéene defee ndax dañu leen waxoon si tàmbali ga mboolem foo xamante ni njabootu Cheikh Ibra Fall gaa ngi fa di toggi ndogu danañ dem wal leen la nga xamante ne moo fa xew kër yi dem nañ fa jëlal leen la nga xamante moo fa xew ngir filndeel rek ñii nga xamante ni nii ñoom ñooy sëtu Cheikh Ibra Fall yi la seen maam nekkoon ñor na leen lool la fi seen maam bàyyi woon ñor na leen lool te fonk nañ ko lool moom lañu leen indiloon tey ànd ak yéen ba fii nga xamante ni mooy résidence fekk fii nga xamante ni mooy Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñaanal ko saa borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ñu jébbal ko ndog yi kon lii lañ leen indiloon incha allah suba la ko ri fas nañ yéene itam nañ ko defoon ba tàmbali ga ba tëjtal gi lépp loo xamante ne mi ngi xew biir kër Cheikh Ibrahima Fall ngeen dund kook ak ñun comme niñ koy dundee jaa ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa